tay nous décider mu symbolique li la fédération des enseignants et éducateurs pour la république Nous décider organiser li nga moy un point de presse point de presse bi nak le indi nak dafa pendant près de huit mois ñun enseignants républicains ak ñi nga de tay le président Macky Sall gëm sa politique éducative

ñom ñep dañu bokku ci li nga moy la fédération des enseignants et éducateurs pour la république Lolo waral tay 28 octobre ñu organiser point de frappe. ñetti mission la ñu am mission bu ñëk fexé ba ñu redonner encore li nga xamante moy suñu éducation ñu gën ko placer ci les rampes de l'émergence. benen bi aussi ñu développer la solidarité entre membres ñetteel bi aussi nag mooy ñu jappalé mobiliser wu fexé ba bép ko xamante tay tey enseignant nga te nga gëm président Macky Sall nga gëm Sénégal. Nous mobiliser autour de la fédération des enseignants et éducateurs pour la république Nous faire fait ñu nous di Nous liggéey le président Macky Sall domaine capital humain CMU ñu domaine euh, microfinance domaine promotion des femmes promotion de l'emploi des jeunes mu Nous côté infrastructure côté école côté zone côté agriculture lolo waral vraiment ñu jël décision bi pour mën a fësal ñepp ñëpp xam nañ ne enseignant ak képp ko xamanté da nga jégué li nga xamanté ne moy ay éducateur ay vecteur d'information lañ danañ dugg ci gox goxaat woné li nga xamanté le président Macky Sall def nako Lolo waral ñun ñu jël cette décision ne dañu wara organiser à travers maintenant cette entité plateforme bi nga xamanté mo ngi tuddu FAIRE FAIRE nak nek une entité bo xamanté ne ko na ci ñepp amul fenn foo xamanté ne tëju na mouvance président te ma wax ni pour une entité concurrente une entité qui a élargir la base du président préserver aussi qui président aussi ko que euh, euh, dès le premier tour. Il def na aussi des délégation les ñëw nañ délégation Matam de Saraya yu Podor euh, Vélingara ñu jugee Vélingara Ferlo Sédhiou Kolda Dakar euh, Tivaouane loolu wan na enseignants yi am passe-passe enseignants yi bëgg nañ seen président enseignants yi quand même pour gunge qui nga xamante le président Macky Sall pour que véritablement li ñu bëgg ci école bi ñu gën ko mën a ci raay bu aussi ne président Macky Sall am un deuxième mandat parce que tout simplement président Macky Sall li nga xamante ne teg na fi doy nañu moo tax ñu bëgg ko ànd ak moom ko ngir véritablement mu jël euh, élection présidentielle dès le premier tour ah loolu nag na mission nous na aussi nag vision mais comme nous commencer fësal li nga xamante ne que mooy fédération ferme, bi buñ fa def une tournée nationale demander aussi nag collègues yi nga xamante les pivots ñoo nekk suñu points focaux dans les régions dans les départements ñu mën dans un premier temps monter une structure communale une structure départementale ba pare ñu dem ci élection assemblée générale constitutive moom nag ci li ñuy li nga xamante kayit yi nga xamante ne moo ñu tënk donc euh, lii la lii la amoon vraiment lu ñuy wax te xam ni vraiment camarade yi góorgóorlu nañ weer bi sore na tey c'est le 28 mais malgré cela délégation yi nga xamante jóge na ci yeneen département du Sénégal def nañ sacrifice ñëw loolu lenn rek lay wane képp ku def déplacement ñëw te un franc joxuñu la ko yaa paasal sa bopp kon gëm nga président Macky Sall gëm nga fédération bi pour mu avancer donc gëm Sénégal ndaxte lu ñu ñor moy émergence Sénégal moy suñu gis-gis gis-gis moy lan ñu mengo ko ak la vision du chef de l'État vision du chef de l'État mu ngi tracé ci plan Sénégal émergent ci axe 2 de plan Sénégal émergent le capital humain mu ngi ci ñor nañu donc lepp luñ ci mëna def dañ ko def pour gunge le président Macky Sall fexe ba école mu ngi nek une école performante une école de la société une école de la nation pour que suba nak xalé kenn ku ci muy population yi muy parents d'élèves muy xale kenn ku ci ne mun a gis sa bopp li nga xamante ne mooy émergence bi jërëjëf maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp te aussi di remercier sama sunu sœur mooy Marème Diop Sylla tey bu ñu ñëwee def li nga xamante ne que mooy point de presse bi fii ci résidence Dadi moo ñu ko faciliter vraiment di ko ci remercier ñu profite aussi occasion bi di remercier suñuy xarit ñi nga xamante ne tey suba ngoon guddeex bëccëg ñu ngi ñuy jàppale en l'occurrence mon suis tout chaque jour que Dieu fait c'est le moment c'est le moment de remercier notre camarade Ibrahim Wad. c'est un partenaire stratégique pourquoi je dis que c'est un partenaire stratégique parce qu'il gère le plan Sénégal émergent d'autant plus que les enseignants vont s'approprier de cette nouvelle offre qui est le plan Sénégal émergent et naturellement nous allons travailler avec ces derniers afin que nous puissions véritablement s'approprier de cette politique d'émergence afin de le pouvoir vulgariser, promouvoir auprès de la population. Donc, euh, chapeau à notre camarade Ibrahim Awad et nous profitons aussi de l'occasion euh, de remercier à tous ceux qui nous ont pu aider par rapport maintenant à la réussite de cet événement. Je peux citer la dame de fer, Fatmata Ndao, qui a accueilli, il faut le dire,